wa fikrati وفكرتي wa qalbi arshida mbokk taalibe yi ci jotaay bi yépp kilifa yu bax yi ci jotaay bi yépp ma ngi leen di nuyu di leen ziyara di jital ci nuyo bi kilifa bërëb bi serigne modou mbacke mom serigne khadim ak njabootu serigne modou barak gep rawatina nak suñu mbokk tari ak suñu mbokk daara ñi nga xam ne nekkoon nañ fële ca Daarul Muxti ñu ay kilifa yu baax Cheikh Abdul Ahad Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Abdul al Abdul Qadim Abdul Qadim yaakaar na ak ñi ci des ñëpp rek noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte ci ñëw fii nga xam ne suñu kër la bu loolu jàllee bala maa dugg ci waxtaan wi sëriñ bi dafa wax ne ñu ngi koy jox boroom xam-xam te waxoon naa seex Mouhamadul Amin ne ko man duma boroom xam-xam ci mbaaxuk sëñ bi rek lay waxtaan xëy na nag mbaaxuk sëñ bi boo ci wax du juyoo xam-xam loolu moo tax xëy na ñu tànn ko waxoon ne itam nañ waxtaane xuququ ni muy xaq yi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari way dencante yi loolu it thème bi xaw naa nuru lu kii nii boo koy doog a dégg waaye bu am solo la xam ngeen ne denc soxna walla ñu denc la ngay soxna loolu kenn mucc ci boo ko defagul it ni nga ko mas a def wala nga def ko ba weesu ko kon thème la bu am solo bu mat a waxtaane te itam ku ne xam ne ne jamono jii nu ne xaq yi nga xam ne moom la sunu boroom wax ne nañ ko sàmm ci diggante ñaari ñiy dencante ñu bari sàmmatuñ ko rawatina itam nun mu yi xam nga ne sëriñ tuubaa ci boppam moo nu jox ndigalul lu ci waay di def na dëppoog la ci yàlla àtte na nga ko xam bala ngaa def dara mi ngi ci jëw xaru nafis mu wax ne bala ngaa def dara na nga gëstu ba xam la ci yàlla àtte nga doog a jëf-jëf jooje bul jëf dara lu dëppoo wut li yàlla bëgg kon nag mu jot nu xamaat suñu digganteeg ñi ñu yàlla booleel ci wàllu soxna yan xaq moo dox suñu digganteeg ñoom loolu nag ci gàttal damay jëkk wax ni góor ak jigéen xam ngeen ne ñoom ñépp ay mbindeef yàlla lañ yàlla leen sàkk ñu yem fa moom li yàlla digal góor moom la digal jigéen ci alquran gis nga sun borom wax ni fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw untha bacdukum min bacd waxaat feneen ne man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa muminun ولو هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وخاتني ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا yonent عليه الصلاة والسلام وقنا إنما النساء شقائق الرجال آية يمدون aaya لم may yàlla subhaanahu wa taala góor ak jigéen ñoo yem fa moom moo xam ngay góor wala ngay jigéen yéen a bokk lu leen yàlla sant mooy nun ñépp la ma waxoon ne fa firru ilallahi ñu daw wuti ko moom suñu borom tabaraka wa taala ba tax na lu waay jëf loolee ngay am Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu ardahu daana wax ni àdduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam góor ak jigéen nag ñoo yem ci loolu ba ci maqaama yi nga xam ne ca la góor yàlla yi jaar góor ak jigéen ñoo ci yem ku ci ne nang ca jaare rek ci yoonu yàlla woowe ak ci sàkku ngërëmul suñu borom tabaaraka wa taala noonu la sa daraja di toll noonu la sa martaba di toll maqaamaat yi suñ borom tudd na ko ci alquran waaye xam ngeen ne fum ci tuddee góor day tudd ca wet ga ne jigéen mën naa am maqaama jooju loolu mën nañ cee indi mu gàtt xam ngeen ni islaam bu ñu waxee maqaama mi ci jublu tolluwaay yi al islaam benn xaaj la ci diine al iimaan xaaj la ci diine ihsaan xaaj la ci diine waaye tolloowuñ nit ki dana nekk ci islaam te du àggagun ca iman la koy firndeel moy li yàlla wax ci subhanahu wa taala ci alquran wax ko yennati gaay yu ñewon jébbalu ci yoonte bi bëgg wax ne nun noongi ci maqamam iman yàlla subhanahu wa taala ne len ak séegu leen foofu yéen nga ci islam قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم معنى qulubikum maanaam ak séegu leen ci imaan am nañu wé sax iman joju dem ci ihsan fofé la ak murit tambalé ngay dox nak di wéy maqamat yoyu gis nga ci alquran bi ko sun borom di wax bu tuddé gor ñi day tudd jigen ña ci wedd waxna innal muslimina wal muslimati wal muminina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati walxaashiina walxaashiaati walmutasaddiqiina walmutasaddiqaati walsaaimiina walsaaimaati walxaafidiina furujahum walxaafidaati waddaakiriina allaha kathiran waddaakiraati fu mu ci wax rek bu tuddee góor ñi day tudd jigéen ñi foofu li ma ci bëgg misaal mooy góor ak jigéen ñooyam fa sunu borom tabaaraka wa taala kenn ku ne ci ñoom ñaar yàlla la sàkk ngay ab jaamam te itam yoon wi yàlla tëral mu jëm ca yàlla nu ci way doxe ci ñom ñaar ñooñu sa kem katan noné la sa daraja di toll fu ne itam man nga fa ag li yàlla santaane itam ñu jëfe ko ci biir société bi la ci gëna kawe ci biir l'islam muy digle lu baax ak tere lu bon loolu it góor ñoo ci yam bo gisé ci alcorane sun borom wax na ne góor ak jigen ñoo ci yam la bëgg wax wal mu'minuna wal muminaatu baaduhumu awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله foofu dañuy gis ndigal lim joxe nga xam ne mooy li gën a kawe fonction bi gën a mag ci liñ ci nit yàlla yi muy digle lu baax ak tere lu bon loolu góor ni mu koy defee noonu la ko jigéen di defee gis ngeen sax am na jigéen ñoo xam ni ñoo gën ay junni junni wala ay millions yi millions yi góor ci alquran suñu borom wax na lu soxna maryam wa id qaalat almalaikatu ya maryam inna allaha astafaaki wa taharak wa astafaaki ala nisaai alaalamin nga xam ne kooku fi ne doonul yonent benn lenn rek lañ gis yàlla joxu ko jigéen muy ak yonent ndax ni yàlla bind jigéen dëpp wut ak doon yonent day mbir moo xam ne góor moo ci gën a moo ko gën a man ci bindam ak ni leen yàlla binde moo tax loolu góor jagoo ko waaye boo gisee soxna mariama masalan mboolem lib yonent di am li koy ràññet leen yeneen yeneen nit ñi loolu lépp yàlla jox na ko ko mooy malaayika yi daa nañ wax ak moom mu am ay xar baax yu daa feeñ ci moom ak jëflanteem yàlla di ko di xamal lu bare bare lu ñeneen xamuloon mu am nag foo xam ni yàlla dafa teqale diggante góor ak jigéen muy biir kër gi nag kër gi yàlla dafa digle góor nekk kilifa kër gi ngir organiser dund gi man xam ngeen ni foofu moo am ak ràññatle nga xam ne sunu borom dafa def góor xam ngeen ne ni ko yàlla bindee ak ni bindee jigéen bokkuñu góor am na lu man jigéen it am na lu man góor dafa am moo gën a ma am doole gën a mën a jànkonte gën a mën a daw ci wut lu indi ci kër gi gën a mën a muñ coona ci yaramam mana samu mana ar a aar kër gi moo tax yàlla féetale ko moom liggéey yi aju ci bitib kër gi moom góor moo ko moo ko yore jigéen nag moo ëpp yërmande ci xolam ci gi ak sàmm jumtukaay yi ci kër gi ak bir kër gi ak defar ko moo yàlla féetale ko ci liggéeyu kër gi loolu suñu borom moo wax ci wax ne wala hunna mithlu bil waye mu tek ci walir rijaali alayhinna daraja moy kenn ku ne ci ñom dafa am lu la war am lo momit muy sa haq mu am nak lo xamni góor nako ko yàlla féetaleel muy kilifteef gi kilifteef gi mom góor lako yàlla féetaleel non la nosé dund kër gi motax mu wax ci benen aaya ne ar rijalu qawwamuna على النساء بما فضل الله بعضهم على بعد وبما انفقوا من اموالهم بوكو ديفه نك حق ييغا خامني مو دوخ سي ديغنتي واي دنجنتي من نانكو تنك ريك سي نياتي خيتي حق غورغي امنا جيرومي حق يو خامني موكو موم غا خامني جيجين غي موكو كو امل جيجين غيت امنا جيرومي حق يو خامني غورغي موكو كو امل نيوم نياريت امنا نياتي حق wala ñeent yoo xam ne ñoo ko séq kenn ku ne ameel ko sa moroom loon ci di wax naan xaq yi nga xam ne moo dox diggante ñaar ñi dencante xaw daa mat juróom ñett boo demee ci yenn téere yi danañ ko lim ba mu ëpp loolu waaye boo seetantale di nga gis ne yu bari ci yi yim day ya lim day dugg ci biir yi may wax moo tax ma gàttal ko rek ci ne juróomi xaq la yoo xam ni góor gee ko moom am yeneen juróom yoo xam ne jigéen ji moo ko moom am ñett wala ñeent yoo xam ne dañ ko bokk bu ma ca jógee ci yooyu dinaa wax tuuti ci bu diggante bi naqaree nan lañ koy defaree jeexal waxtaan wi bu soobee yàlla góor gi am na juróomi xaq yoo xam ni moo ko moom soxnaam ameel ko ko nga xam ne moom faw jigéen ja da ko caa war a daa war a sàmmoonteeg xaq yooyu la ci jëkk mooy topp boroom këram ci lu dul ak mooy yàlla topp boroom këram nag boroom xam-xam yi dañ koy teqalewaat teqale yu bare bare bari topp boroom kër bari na yoo xam ne dañ koy jàppe sax xaq te fekk mu mu dugg ci biir topp ko waaye gàttal gi mooy war na ko topp ci fum soxlaa wéet ak moom mu ànd caag moom loolu mooy la ci jëkk ba ca topp mooy doom yi nga xam ne yàlla leen ko jox ñuy seenu njaboot góor gi la yàlla sant mu yar leen bis bu leen di yar nag di leen teg ci yoon lum nuru nuru lu metti wala lu diis soxna si da caa war a ak góor ci topp ko ca nam leen di yare li feeg lu baax rek la leen bëggal ba ca topp mooy jigéen buñ ko mayee borom këram borom kër ba sañ na ko yóbbu mu dëkkeeg moom loolu xaq la joo xam ne ko moom mooy sañ na ko jël yóbbu ko mu dëkk ak moom fa dëkk loolu la wax sëyi suñ boroom dafa wax ne askinuhunna min xaytu sakantum min wujdikum bu ko yóbbee ci kër gi itam moom soxna si dafa war di toog ci kër gi warta génn lu may ci ndigalul boroom këram loolu mën nañ ko déggee ci li sunu borom wax ne na fii bu buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati luula ñaar yooyu ma wax nag saa yoo xamee ne soxna si sàmmoontewul ak ñoom ñaar mooy benn nungu la dem ca kër boroom këram wala bi mu ñëwee ci kër gi nungu la toog toog xanaa bis bu ne muy génn ci lu dul ndigalul boroom këram ñaar yooyu lu mu ci def dañuy jàpp ne jàdd naw yoon dañuy wax nusuuz moom lañ jàpp ne moom la def lol nag ca mujj ga danañ wax lan moo ci war ñaar yi bu ci am rek ci misaal la gën a gaaw la ca gën a lañ cay njëkk a teg mooy dépense yi nga xam ne moo waroon borom kër gi di xàq ci yoo xam ne soxna yee ko moom loolu dootu warati borom kër gi loolu moo ci jiitu danañ ca ñëw ci buñ ci accès mu amit lu lu ci mata bàyyi xel foofu mooy borom xam-xami fiq yi nga xam ne ñooy jàngale di dégg gën a mën a dégg li yàlla bëgg wax ak yonent akub yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci nusuus yi ak texte yi ñoom dañuy wax ne soxna soo xam ne dafa bokk fu baax bokk ci nit ñu baax kooku dana am tuuti wuute ak ku bokkut ak moom ci misaal xam nga kër gi liggéey yi nga xam ne moo nekk ci kër gi soxna si la war moo war di def liggéey kër gi yépp sayiduna aliyu radiallahu anhu ak soxna fatima mi nga xam ne doomi yonente bi la alayhi salatu wasalaam yonente bi moo leen waxoon ñoom ñaar ne leen liggéey yi aju ci biir kër gi na ko soxna si def yi aju ca bitib kër ga nag muy wuti ak lijjanti loo dundale njaboot gi loolu na ko Seydina Ali yu féetewoo foofu la boroom xam-xam yi sukkandiku ci ne kon góor gi liggéey yi aju ci biti kër gi moom la waaye jigéen gi li aju ci biir kër gi yépp moom la war yi aju ci biir kër gi nag mooy lu mel ne fóot ak togg ak lu mel ne bale ak lu mel ne defar kër gi waaye loolu lépp nag boroom këram dong la ko war a defal gani borom këram sax su ko neexoon bañ ne duma leen ko defal foofu itam des na fi taqale nii soxna si nga xam ne dafa am daraja nga xam ne société bi ñoo ko jox cir réew moo dem am na fa nit ñoo xam ni dañuy am daraja moo xam ci fuñ bokk la fu baax wala seen alal li àdduna wala daraja yi àdduna lañ am waaye lu mën a xew am na ñu ñuy fonk ci ay société foo dem rek jigen ñu mel non nak lañ wax ne su fekke ne borom kërëm man na wut mbindan wala mu am dara ci alal de su ko forcer ci ne faaw mu liggey liggey kër gi bo borom kër ga da koy wutal mbindan wala ku koy liggey liggey yoyé Nek non nit goor gi sa yo xamé ne dem na ba wara tukki bu boba soxna ci da ko wara top ci and ak mom dem fu neex goor gi waaye ci kaw ñeenti sart yi daje ci mooy na fekk mu jox ko canam ba noppi buñ ko koy doog a may rek joxagu ko can bu baa bu neexee soxna si mu bañ a dem mu bañ a ànd ak moom tukki nekk noonu góor gi fa jëm na fekk moom it muy ku ñu wóolu koo xam ni moo soxna si buñ demee soxna si dana nekk ci sécurité ci misaal góor goo xam ni dafa khuluk soxnaam ba tëkk ko di ko waaje duma ñépp ñëw atelen leen mu ne ko suba dama bëgg nu ànd dem si boxotaan masalan kooku kenn du ko mu ànd ak moom ndax wóorul mën na ko faat ci yoon wi man da fekk góor gi ñu wóolu ko ci mu mën a soxna si ba muy del si ba ca toppit dëkk bañ jëmit na fekk mu am sécurité wóor nga xam ne dañ fa mën dem ci jàmm dëkk ci jàmm su fekkee am amul sécurité masalan dëkk bañ jëm soxna si bu ko neexee lànk ku waxoon soxnaam ne ko dama bëgg tey nu xëy suba dem fa daais fi ñuy wax ñoo ñooñu fañ ne wala bu ko xaram gaa ñooñu nga xam ne moom dañuy faat nit ñi ak di def lu kenn xamul ci ay ay njombe bu neexee soxna si mu lànk ndax bërëb ba moo amul sécurité nekk noonu it fa jëm ak fu lum sori sori waa kër soxna si nañ di man di jokkook ñoom jokkook moom ñeenti sart yi bu ci dajee faw soxna si ànd ak moom topp ko ci tukki ba ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam mësula tukki lu may ne dafa ànd ak kenn ci ak njabootam alayhi salatu wasalaam niki noonu itam soxna kenn du ko takk ci faw nga liggéeyal ma liggéeyu ci bitig wala ci commerce wala yu ñu deme day am fii nii ci suñ gox yi ñoo xam ni dañuy wax soxna ne ko yow dinaa la takk waaye balaa boobu danga may nekkal ci sama bitig bi wala boog nga nekkal ma ci pharmacie bi wala yu ne demee wala nga bokk ci sama société bi di fi liggéey ay at ma doog laa takk nga xam ne moom liggéey bëgg ko liggéeyloo moo tax ñu takk ko loolu dañ ko aaye lu mel noonu it liggéey yi nga xam ne moo ne aju ci biti mu bitib kër gi soxna si bu ko neexee bañ caa topp borom kër ga fàggu alal loolu góor la war jigéen moom liggéey kër gi moo ko war am loo xam ni dañ koy def muy booy wutal sa soxna mbindaan wala ku koy liggéeyal wala gone gu nekk ci kër gi dañuy bëgg mu nekk jigéen de moom wala mu nekk koo xam ne dafa xaraamante ak soxna si soo wutee góor goo xam ni mook soxna séquñu dara loolu tuuma mën na ca juddoo te loolu moo tax lislaam di bañ lu mel noonu niki noonu itam góor gu ne war na jàppale ak njabootam ci liggéeyi kër gi ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ngën ji mindeef di royukaayu mbooleem jullit ñi itam wax nañ ni soxna Aysa dañ koo mas laaj ne ko yonent bi nan la daa def bu nekkee ci biir kër gi mu ne leen kaana basharan min al bashar yafli thawbahu wa yaxlibu shaatahu wa yaxdimu nafsahu moom bindeef la la jàppe woon boppam nit la jàppe boppam amut lenn lum daa bëgg di ko raaj ko ràññeetle ak nit ñi moo tax masa nekk ci kër gi yére boppam moo ko daa teeñal boppam ak di ko defaral boppam gàtt yi nga xam ne ci lañuy ñuy ratte soow moo ko daa rattal boppam moom soow mi moo daa liggéeyal boppam itam lépp ba ci aw dàllam bu masaa dagg mooy moo koy defaraatal boppam bu yére masa masa xotti ko itam moo koy ñawal boppam moom yonente bi alayhi salaam ba ci bale kër gi sax moo ko daa def moo daa bale néeg bi kër gi moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nag la borom xam-xam yi wax ne góor gu ne am rëyu di jàppale njaboot gi ci yenn liggéey yu rawatina yi xam ne dafa aju ci yow lu mel ne defar sa yére ak lu mel ne ndoxum jàpp wala ndoxum càngaay yooyu nga di ko wutal sa bopp loolu ku mel ne ibnul arabi al faqih ci ahkaamul quran day wax ne góor gu ne da ko war a defar sa bopp Nek nonu gor gi tam soxna si da ko war ci lepp lo xamne ci haqi gor gi la bok ci misal su gor gi soxna si di waj di defar bopam ngir gëna a tar soxna si da ko fekk si ci loolu amna soxna yo xam buñ amé benn dom ñaar dañuy daldi di bayliku ñu topato seen bop te amna te gor ñi leen dañuy bëgg soxna si di defaraat seen bopp ak di gën a jekk bañ gën leen mën a gis loolu nag wax nañ ne soxna yi fu lu mel noonu dañ ca war a topp góor gi nekk noonu yenn xeet yi nga xam ne neexut wala yenn mbir yi nga xam ne boo ko lekkee lu mel ne laaj wala soble yu demee noonu nga xam ne boo ko lekkee da lay jural xet gu naqari su fekkee neexul borom kër gi sañ na ko ko aaye loolu ci xàqi borom kër gi la bokk ak mboolem liggéey yi nga xam ne day yàq aw yaramam di yàq jëmmam yooyu sañ na ko aaye moom ba tey bokk na ci li nga xam ne noonu moom la soxna si war a topp boroom kër gi mooy xaq yàlla yi loolu moom da ko jëlale mooy julli ak sangu farata ak yeneen demee yooyu borom kër gi da ko war di digal te soxna si da ko ca war di topp ndax yàlla moo wax góor ñi leen yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yonente bi waxaat ne ala kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ca biir xadis ba wax na ne wa rajulu raain ala ahli baytihi na huwa masulun an raiyatihi mooy góor gu ne yàlla laa sàmmaloo kër gi digal la itam bala ngaa lijjanti sa xaqi bopp nga lijjanti xaq yàlla li yàlla bëgg nga nekk ci te nekkloo ci sa njaboot moo tax loolu war naa fexe ba jigéen ñi ñi ji nga xam ne moom la denc di jëfee ndigali suñu borom yooyu tabaraka wa taala saa yu ko digalee nag loo xam ni ak mooy yàlla la moom jigéen ji waru ko ca topp ndax yonente bi alayhi salaatu dafa am kenn ci jigéen ñi dëkkoon Madina ku masa maye doomam kam ko may bi mu ñëwee gis ndaw si wala soxna si gis bopp bi cuqeeral amul kawar mu wax yaay ji ne ko bala moo sëy si lijjantil ba defaral karaw ba defaral ko karaw gi yokk ko ndax kawarum gi mënuma ko gis man yaay ji dem ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko ko ak bëgg gi mu bëgg mu yokkal doomam jooje kawar moom moom borom kër ga yonente bi ne ko bul ko yokk kawar ga ndax innahu qad mu wax silaat ñi yokk kawar yàlla da leen rëbb moo tax bul ko yokkal kawar ga loolu nag ci la borom xam-xam fiq yi sukkandiku ci ne kon lépp loo xam ni lu neexul yàlla la borom kër bi bu ko dee digle itam soxna si wër ko ci topp waaye yenn ndigal yi nga xam ne yàllaa ko digle te muy yoo xam ne du farata yooyu moom borom kër bi sañ na ko bañ a defloo masalan koru ngàtt nga su soxna si bëggee woor te borom kër bi nar ko aajowoo ci bëccëgu koor gi boobu sañ na ne ko bul woor te boo du sañ a woor ak yi ni topp borom kër gan loolu mooy gàttal gi rek ngir waxtu wi ñu njëkkanteeg moom loolu mooy xaq ji jëkk nga xam ne góor gu ne sa soxna ameel na la ko mooy mu topp la ci yi ma wax nii ak ni ma ko waxee. gis ngeen li lay xamal ne topp borom kër borom kër rëyaay gi sëñ Tuba wax na ko ci wasiyatu soxna pend Diop. wax na ne wala tarumi taatallahi bila taati zawjika taqiyi dil ula mënuloo topp yàlla bul jéem a jàpp ne yow sox yow jigéen gi mën ngaa topp yàlla ci lu dul ngay topp sa boroom kër tabaraka wa taala loolu sëñ bi da leeral la yonante ba alayhi salaatu wasalaam waxoon ne jigéen su jullee julli juróom woor weeru koor téye boppam sàmm boppam topp borom këram bu ëllëgee dañ koy wax ne ko bunti bunti yi bu la neex nga dugg yaay tànn fu la ci neex nga dugge loolu sëñ bi wax ne kon yow boo toppee yàlla itam subhanahu wa taala nga topp sa borom kër waaye nag taati zawjika taqi na fekk borom kër bi di ko ragal yàlla sëñ bi wax ci itam ni wal taalami anna jihaada niswa fi taatil azwaaji duna mirya wax ne jihaad yi jigéen ñi mi ngi ci topp seen borom kër tabaraka wa taala bo topp seen borom kër bopp ci anam gi ko yàlla digle subhanahu wa taala loolu itam day firndeel xadis bi nga xam ne moom lañuy nett li dañ wax ne soxna yi ñoo mas yebal kenn ci yonante bi alayhi salaatu ne ko ñun jigéen ñi dañoo gis góor ñi ñooy dem ci jihaad di xeex ci yoonu yàlla yàlla dig leen ci yu kawe kawe njort te ñun jigéen ñi xemmem nañ loolu ñuy laaj nan lañuy def ba mën a am yoolub jihaad ak dee ci jihaad shahid yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax leen ne leen yéen soxna yi ku ci topp sa borom kër ci ni ko yàlla santaane di nga am yoolu ku dee ci jihaad saa yoo faatoo loolu moo tax sëñ bi wax foofu ne wal taalami anna jihaad niswa fi taati l azwaaji duna miria sëñ bi àgg ci wax ne wa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi nicmati su la sa boroom kër gërëmee yàlla dalay daal di gërëm subhanahu wa taala ngërëmul yàlla xam ngeen ne mooy li gën a jafe ci kaw suuf góor yàlla yi bàyyi woon seen lépp topp Sëñ Tuubaa li ñu doon sàkku mooy ngërëmul yàlla Sëñ Tuubaa sa yu la sa borom kër gërëmee bu wér te borom kër ba di ku ragal yàlla di nit ku baax ku yàlla gërëm ba yow soxna si bu la sa borom kër boobu gërëmee da nga daldi am ngërëmul yàlla yow it waaye foofu am na lu fi mata a leeral mooy al sëñ alxaaji mbakke laa gis mu net li ci téeréem bi mu dajalee waxtaani sëriñ yi wax ca ne wér na itam xam nga da ci def ay teqale am na xam ne net li yoo xam ne wax ne wér na am yu ne wér na kese am yu ne wër na am yu ne siiw na bii may wax nag wér na la ca wax mooy nett li bu ko doy la da ca wax ne dafa am ku ñëw ci sëñ bi soxnaam faatu mu wax sëñ bi ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma ko téewul sax man rafet naa ci moom njort ndax gërëm naa ko xam naa dana am lu baax sëñ bi ne ko yow moomu ko gërëm yow ku la gërëm yow bu ñuy wax ne borom kër bu gërëmee soxnaam mu am ngërëmul yàlla wala mu am lu baax day fekk borom kër ba yàlla gërëm ko mbaa waay mbaa waay yàlla gërëm ko loolu lu ci mat a xel la kon kon mooy borom kër boo xam ni ci bànneexam rek la ne kooku kin waxut ne bu la gërëmee nga am ngërëmul yàlla borom kër boo xam dafa tegu ci yoon loolu moo lay xamal kon yu topp sa borom kër ndax li ci sëñ boobu wax si si ahmad bamba radiallahu anhu ñaareelu xàq yi nga xam ne moom la soxna si ameel góor gi mooy mu sàmm boppam ci lépp luy jur tuuma wala muy indi sikk sàkk ci moom wala muy yàq daram wala mu yàq daru borom këram da ko war a daw loolu it bunt bu mag la boo xam ni borom xam-xam yi dañ cee def ay détails yu bare bare bari bokk na ci ngir ub bunti tuuma yooyu ñu wax jigéen ji ne ko booy waaj ak di defar sa bopp bul ko defaral ku may sa sa borom kër sañoo waaj wala nga defaru ngir keneen ku may sa borom kër yàlla ma wax ci alquran ne wala yubdiina zinatahunna illa li buulatihin aw abaayihin aw abaay buulatihin maanaam sa borom kër rek nga war a wan sab taar yëmut ci loolu suñ borom da wax ne fala na bil xawul booy wax ak ku dul sa borom kër na wax ji dëgër te diis te gàtt wax joo xam ne day jur ak a jeq ay bànneex ci góor bul ko wax ak ku sa borom kër wax ju neex kon loolu moo tax borom borom xam-xam yi wax ne loolu boo ko defee dana dana ub bunti tuuma yu bare bare ci yoo xam ni dana la jural itam ak sàmm ci sa bopp ak sa kër ak sa njaboot nekk noonu borom xam-xam yi sax dañoo àgg ci wax ne booy génn bul sax xeeñ yenn lojkoñ ñi nga xam ne day am xet gu sori ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam moo wax ci li li imaamu tirmisi nett li ne wal maratu ida staatarat fa mar fa marrat bil majlisi fa hiya zaniya su fekkee dafa xeeñ xet goo xam ni maanaam xet gu neex goo xam ne fu mu romb ñépp bàyyiwaat ko xel bu mu sikk ne mi ngi njaaloo wal iyaasu billahi ngir ub bunti tuuma itam moo tax ñu digal jigéen ñépp biir kër gi bul ci dugal bul fat bul nongoo kenn seetsi la ku may koo xaraamanteen wala xanaa ci lu borom kër bi fekke wala mu digle ko wala mu neex ko bu borom kër bi nekkul ci kër gi sañoo faa dugal kenn kudul ko xam ni xaraamante ngeen muy sa mag wala sa rak wala sa baay wala sa baay bu ndaw niki noonu bokk na ci xaq yi nga xam ne moom la góor gi moom te jigéen gi ameel ko ko mooy doom yi nga xam ne moom lañ seq ñoom ñaar jigéen gee ko war a nàmpal te itam góor gi wër ko ci fay dara yàlla subhaanahu wa moo tax wax moo wax ci alquran ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni aaye boobu dafa bokk ci aay yu bari ci alquran yoo xam ni dañu amee maanaam lafzul xabar wa maanaha al amr mooy ndigal la rek ci gàttal yàlla digle na jigéen ñi ñooy nàmpal te buñ nekkee ci biir sëy ba buñ ca laaj dara ci nàmpal gi ba ca topp di ñeenteelu xaq yooyu mooy ñi bokk ak boroom këram na jëflanteeg ñoom jëflante bu rawat bu rafet mooy ñaari wayjur yi boroom këram ak ay mbokkam ñoo ñépp na fexe ba di leen jokk di rafetal digganteem ak ñooñee bi ko juróomeel mooy bu doom juddoo ci sëy bi ca baay ba lañ koy yéegal mooy baayam lañ koy askan loolu day nuru lu waaye lu am solo la ndax tey bu nit doon sëy ako chrétien bu jigéen xam ngeen ni bu ca doom juddoo faw dañ ko war a askan ca baay ba mooy day topp baayam ci diine day topp baayam ci askan mooy ab jullit lay doon te seen yaay bu faatoo duñ duñ donn seen yaay seen yaay du leen donn ndax ab yéefar la moom moom yaay ji yonent bi boo xam ne laa yarisul muslimul kaafira wala yarisul kaafirul muslim moo tax doom yépp bokk na ci xaq yi ñu am ñoom doom ji ñoom doom yépp mooy ñu askan leen ci seeni baay ci wàllu diine ak ci wàllu askan askan gi ñu leen askan ci seeni baay nag dafa bari lu ci aju la ci jëkk mooy dañuy mën a donanteeg seen wajur woowu ñaareel ba dañuy duñ mën a goroom leen teg moom ñetteel ba dañ mën a wéet ak moom ci kaw ne da leen a xaram bu dee góor ak jigéen loolu ci gàttal rek mooy juróomi xaq yi nga xam ne moom la góor gi moom te jigéen gi amel ko ko soxna si itam am na ay xaq yoo xam ne góor gi moo ko ko ameel ba ci jëkk mooy bu ko takkee faw mu can ko jox ko li ñuy wax can yàlla moo wax ci alquran ne wa aatu nisaa saduqaatihinna nixlatan fa mastamtaatum bihi minhunna fa aatuhunna ujurahunna farida mooy soxna boo ko takkee faw nga jox ko can loolu xaq la joo xam ni jigéen ji moo ko moom ki ñuy takk moo ko moom fii nag suñ gox yi ñu bare bari liñ jox jigéen ji mbokk yi ñokay seddo wala ñu def ci leneen waye jigen jiñ tak momom momom can gi can itam du luñ limité gox bu ne ak lañu joxe ci can waye yoonte bi dara wax ne sey bi ëpp barke sey bi ëpp barke moy bi gëna neew ak can waye bëgg ñu itam mu neew neew ba ku juk mëna takkano ay soxna yu kenn xamu num mu toll dañoo bëgg mu nekk ci digg bi rek bu mu ëpp waye bu mu yes xam ngeen ne nun mouride yi señ bi dañoo joxon ndigalul ku ci tak soxna bu dee ko am alal na joxe ñaari téeméer ca jamono sëñ Tuubaa nag bu dee ko amul alal na joxe téeméer juróom fukk wax nañ ne sëñ lu mu baax ma daana ko daan dafa waxoon moom ne nañ ko xool nañ xool jamono yooyu ñaari téeméer lan la manoon ñu xool booba ñaari téeméer mënoon a jënd aw fas moo tax ci jamonoom ñuy seet fas lim mën a li nga xam ne moom lay jar ñu di ko def ak can waaye gis nga am na yenn murid yoo xam ne ñoo xam ne ñaari téeméer yi moom nañ ci yem rek ñaari téeméer nag moom bu fekkee ne foofu la yem kenn ku ne mën a takkandoo bi seet lu kenn xamul ci ci ay soxna moo tax loole suñ fal waxoon gisuma lu ko gën a dëgër te am naa yaakaar ci ne moo gën a dëppoo itam bëgg ko sëñ ba mooy ñaari téeméer lam mënoon ci jamono sëñ Tuubaa nañ koy xool waxtu wu ne ñu di ko xayma ci can yi dëkk bu ne nag fi mu ne nii ak la ñuy def can am ñuy def fukki junni am ñuy def leen waaye lu mën a xew can googu xaq la joo xam ne jigéen jee ko moom góor gi ameel ko ko la ca topp mooy li ñuy wax an nafaqa muy dépense yi nga xam ne moom la góor gi di dépenser ci jigéen ji loolu it ay ñeenti mbir la yoo xam ni góor gi moo ko ameel jigéen ji ba ca jëkk mooy jox ko mu lekk ba ca topp mooy wodd ko ba ca toppaat mooy dëkkal ko ba ca toppaat nag mooy su woomalee moom góor gi mu wutal ko mbindaan wala ku koy liggéeyal ku ku koy jàppale ci liggéey bi ba ca toppaat mooy yi nga xam ne mooy moom lay sangoo bagage yooyu ak jumtukaay yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ci defar boppam mu wutal ko ko ci lu gàtt rek xam ngeen ni li tax ñenn ñi dañuy la dañuy wax naan lan moo tax góor moom ñu sëf ko dépense dépense yi te jigéen mel ni moom mën maanaam lijjant ne moom waaye loolu li ko waral mooy góor gi xam nga ne moom dafa jële jigéen ji ci kër ndeyam ak baayam indi ko këram tëj ko fi yemut ci loolu jigéen gi jàpp ndalal ko boppam yemut ci loolu jigéen gi nekk ci ay service am di ko liggéeyal di sàmm këram yemut ci loolu mu di ko yaral ay doomam nekk ci lim bëgg di ko liggéeyal di ko toggal di ko fóotal def yooyu yépp loolu lépp nag bu ko jigéen ji def kon war na ci góor gi mu lijjanti fexe ba jigéen ji bañ a aajowoo dara yoral ko léppam warlul ko léppam loolu moo tax lislaam wax góor gi moo war a yore dépense yi dépense yooyu nag bu ma koy tënk rek am na lu bari loo xam ne dama koy jël ndax waxtu wi mooy dem dépense yooyu ci gàttal wax naa ne ñetti xeet yi bu ñu waxee nafaqa moom lañ ci jublu ba ci njëkk mooy mu di ko jox mu lekk lek gi itam kenn du wax ne nangam mom nga koy jox diko limiter dedet bis bu ne lu ko rek na lek ba suur di nan ba mandi bis bu ne borom xam-xam nak dañ wax ni soxna boko yoré semaine bu ne war nga fexe ba mi lek yap ak fruit ñetti yon ci semaine bi so amul doole lol nga diko def ñaari yon par semaine bu sa doole nga diko def ben yon par semaine waaye benn yoon boobu mënta ñàkk faw léeg nga koy wutal ndawal ak yàpp mu di ko xewloo par semaine mënta ñàkk nekk noonu itam buy ñëw ci kër gi xew bi nga xam ne moom lañu ñu tudde céet woowu mënta ñàkk loolu xaq la joo xam ne soxna see ko moom bu bëggee ñu ñu defal ko xew woowu nañ ko def waaye nag bu mu àgg ci nii fii muy àgg tey ci nga xam ne ak yàq da cee dugg bu mu dara ëppal walla pasar pasare bu mu ca dugg niki noonu bu amee gone mbooleem dépense yi aju ci am gi doom ak paj mi yooyu yépp góor gi moo ko warlu ba ci sax lekk yi nga xam ne moo koy may kàttan ci jamono joju ndax nit ki bu wasinee day néew doole lekk yañ koy war a defaral ngir mu may ko doole ak kàttan yooyu góor gi moo ko war moo ko war moo ko moom la war te deesu ko ci neexal da koy def dañ ko ci forcer bu bu ko naree bañ lolu moy walu dundal gi budé dee wodd gi itam xam ngeen ne gor momit mo wara war soxnam ko day li itam des ko nat des ko limité itam nay seet li nga xamné mom la la wo ci day rek mu di ko jox gën jaa néew at mi war na ko jox ñaari yoon day gën jaa su su ko mané nak mu wessu fofu su mën su mënul ñaar yi mom benn bi ta ñak par at mu ne waaye li muy sol ngir génn dem ci xew yi loolu moom warul góor gi du cegee ni lii xew léegi nga xam ne fu xew jote nga xotti xotti xotti xew woowee ngir génne ko demee ko ca xew woowee loolu moom du lu war genn góor nekk noonu jumtukaay yi nga xam ne moom lay defaree boppam di ko waajale boppam yooyu yëpp itam góor gi la war muy adawatu ziina yi nekk noonu bu wéradee itam góor gi moo ko war a faj loolu boroom xam-xam yi dañu wax sax ne du xàq borom xam-xam yu jëkk ya waaye fi mu nii borom xam-xam maase nañ ci ne ci la bokk ndax dafa bugg dugg ci aaday nit ñi nit ñee ko def aada mooy sa soxna bu wér dee nga faj ko ñetteelu dépense yi mooy dëkkal ko góor bu takkee soxna da ko war a dëkkal ci kër fa mu koy dëkkalit boroom xam-xam wax ne ne gën jaa néew na nekk néegu boppam boo xam ni day ànd nag fu mën a togge waañ ak ay wanag mu am bunt boo xam ne da koy tëj am sécurité ca biir ci alalam ak ci jëmmam loolu mooy li mënta ñàkk moom lay nekk ca biir néeg boobee nag ci ay jumtukaay loolu dañuy seet ya ca mënta ñàkk la góor gi def lal baag ak yi deme te yooyu sax bu xajee ca can gam ko joxoon dañ ko da ko war a def ca can ga waaye fi mu ne nii dafa dugg ci aaday nit ñi ne li lii nekk ci néegub sa soxna lépp yaa koy wut te borom xam-xam mi am na qaayida bu njàgg wax mooy al maarufu urfan kal mashruuti sartan mooy yi mënta ñàkk ci néeg bi rek ci gàttal rek yow yaa ko war a def mu am ay masaayil yu bari foofu ci kaw soxna si su fekkee ne dafa wax ne man sa mbokk yi mënuma dëkk ak ñoom foofu boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bare bare bare waaye gàttal gi mooy dañuy seet rek su fekkee dëkk gi muy dëkk ak say bokk dafa am lor ju joo xam ni moom lañ koy lor moom soxna si bu baax moom dañuy forcer góor gi ci mu bañ a dëkkal soxnaam ak ay mbokkam waaye su fekkee amul jenn lor moom ci gàttal faw mu nangoo dëkk ak mbokki góor gi te du ko sañ a bañ nekki noonu it léeg-léeg nga gis koo xam ni day takk soxna soxna sa yoraale ay doom ci jeneen jëkkër ju jiitu woon loolu it am na teqale mooy day am ñoo xam ne yoo xam ne du ma mën a dëkk gone yi foofu it dañuy xool su fekkee ne yow bañu ba ngay takk soxna si xamoon nga ne am na gone faw gone yi dëkk yow mënoo ko sañ bañ ndax xam nga nga xamoon day tekki ne yow ànd nga ci ñu dëkk ak yow su fekkee xamoo ko woon nag foofu dañuy xool su amee keneen ku leen mën a yar ñoom ku leen mën a yor ñoom gone yi ñu ñu bañ a dëkk yow waaye bu amul ku leen mën a yor faw ñu dëkk ak yow mu am yoo xam nit bu amee dépense yi ma wax ni dootu warati góor gi ba ci njëkk mooy nusuusu zawja nusuusu zawja wa xurujuha an taati zawji masalan xaq yañ waxoon ca góor ga war gi mu war a topp góor gi moom soxna si su fekkee ne génn na ca mooy ndigalul góor gi sa montewut ak xaqi góor gi boobaa dépense yi waratul góor gi nekki noonu itam bu fekkee ne borom kër bi dafa ñàkk ba yorul dara nga xam ne mënta sax dundal boppam waxuma laa ak di dundal keneen boobaa itam dund bi da koy wàcc boo dañuy xol soxna si moom lañuy tànnaloo su ko neexee des ak borom kër gi su ko neexee itam ñu fase ko mu dem te bu faw góor gi dañ koy forcer ci mu fase soxnaam soose ndax mënu ko dundal su neexee soxna si itam mu des fa di dundal boppam su ko neexee sax muy dundalaale borom këram. bokk na ci li nga xam ne day day tax dépense yooyu wàcc la mooy kenn ci ñaar ñi dencante faatu xam ngeen ne dépense bi sëy bee ko waral te sëy bi bu ci kenn faatu ci yéen ñaar sëy ba jeex na ci misaal su fekkoon da ngaa jox sa soxna dundub at ñu dem weer rek yow nga faatu wala iyaasu billahi boobaa la des ca at ma lépp da la koy fay fi ne da ngay dem lelek ci mirage ñu ne la góor gi bay fi dara fekk lam fa jot a bàyyi soxna saa ko xewlu ak ak waa kër ga loolu nag njuumte la li fu fu fu sëy bi doge rek la ca des maanaam dépense waratul góor gi bu fa bàyyi woon dara ngir ñu dépensé ko ci at mi boobaa dañ koy jàppee alali góor gi te dañ ko war a miraas nekk noonu bokk na ci tax dépense yooyu wàcc góor gi mooy mu fase soxnaam fase su dog fase mu dog moo xam ni du ko ca mën a fayli fase mu mel noonu dund wëratu ko ci soxna sose waaye am na yoo xam ne itam day nuru ne day tax dépense yi wàcce te tax mu wàcce la masalan soxna si bu fekkee dangaa nekk ak moom te mënoo jariñu ci moom ngir wéradi gum wéradi wala ñu tëj ko sax moom kaso moom soxna si ci bor yoo xam ni da daa tegu ci kawam walla yi ni demee nga xam ne moom daal lu mën a xew tooñ gam def ba bañ tëj ko du moo ko sabab du coobareem lu mel noonu ba tey dépense yi yow la war danga war di dundal sa soxna soosee nekk noonu sa soxna bu dee tukki te tàggu la nga bàyyi ko mu mën a tukki boole ci tukki boobee dépense yépp yow la war même bu doon aj màkka masalan donte neexu la moom dem gi sax dépense yépp ci biir aj ga ba ba muy del si yow la war bokk na ci kon loolu dama ci yàggal muy xaq ñaareel boobu te muy dépense yi nga xam ne moom la góor gi ameel soxna si loolu mooy ñaareelu xaq yi ñetteelu xaq yi nga xam ne moom la góor gi moom la soxna si am te góor gi ameel ko ko mooy muy si muy dem di seeti ay waajuram góor gi war na koy bàyyi muy dem soxna si di seeti ay waajuram loolu xaq la joo xam ni jigéen ji moo ko moom góor gee ko ko amal moo ko ko ameel nekki noonu itam waru koo aaye kër këri rakkam ak magam ak nijaayam ak doomi baayam yu ndaw ak yu ne demee yooyu ñooñu seeni kër war na koy bàyyi mu fay dem di leen seeti ñoo war na leen war na leen bàyyi ñuy ñëw di seet si soxna si mu des nag bu fekkee ne dafa wax ne man damaa seetlu ne soxna si bu demee ci kër kër mbokk ya bu ñëwee indi jeneen jikko ju bokkut ak jama xamoon nga xam ne dañ may yàqal soxna si kooku moom waa yoon da koy wax ne ko soxna si bu mu demati nañ koy fekk si ñoom te bu ñëwee nañu wut ku fa toog ak ñoom ba la la ñuy wax ak moom ñu mën ko xam ñeenteel bi ci xaq yi nga xam ne moom la jigéen ji moom góor gi ameel ko ko mooy su fekkee ne góor gi dafa yor yeneeni soxna mu yemale ko mu yemale leen loolu xaq la joo xam ne jigéen ju ne am nga ko ci sa borom kër mooy ña nga fa bokkal di sëy danga dañ leen a war a yemale ak ñoom yamale gi nag mooy ci dëkkoo gi ak ay yi ak jëflante bi ak dépense yi dépense yi itam yamale moom yomb ci mooy kenn ku ne lam yittewoo ak lam soxla ak la baax ci moom rek nga koy jox boo ko joxee yamale nga ko ñu des dëkkoo gi nag ak ak euh, ay yi yooyu moom léeg-léeg mooy moom mooy yi nga xam ne mënta ñàkk ñu yemoo ci fi mu ne ci misaal rek su mbokk yi nga xam ne dañuy am kër fii Touba di di liggéey fële ca Ndakaaru am na ñoo xam ne dañuy takk beneen soxna dem yóbbu ko ndakaar nekk ak fa nekk ak moom juróom-ñeenti weer bu tabaski jotee ñu ñëw fii def fi ñaari fan delluwaat Ndakaaru xam kooku moom yemalewut kii ak kam yóbbu Ndakaaru xam nga ne moom li baax mooy boo ko yóbboo juróomi weer bu ëllëgee nga yóbbu ki ci juróomi weer te ñàkk yamale ay soxna loolu yàlla da cee tëkkoo yàlla dafa wax sax ne fa in xiftumu allah taadilu fa waaxida bu ngeen xawee ragal ne mënu leen a yemale yem leen ci kenn fi ne sart la bala ngaa wut soxna da danga dalay wóor ne mën nga leen yemale yonente bi alayhi salatu wasalaam danaa wax ne yowmal qiyam képp koo xam ne dangaa yore ni soxla te yemal yemale woo leen woon boo ñëwee sa genn wet gi day paralysé ngay jeeng-jeeng yi ñëpp xam ne kii ci àdduna day yemale wutoon ay soxna yàlla yàlla musal ci lool moo tax yemale di lu am solo waaye yemale nag mooy saayir si ak biti bi biir ga nag moom yalla ko xam lolou mene su ci yamale xol bi nit ken mun mun ci yamale yàlla sa moko wax ci alquran walan tastatiu an ta'dilu bayna an-nisa'i walau xarastu fala tamilu kull al-mayl fatadharu hakal muallaqa moy xol ba mom mënoo len ci yamale motax tax yonente bi alayhi salatu wasalaam bu ma sa sedele ba nopi digentem ak soxna mi alayhi salatu wasalaam wa wa radiallahu anhunna dara wax ni allahumma hadhihi qismati fii ma amlik fala talum nii fii ma tamliku am amlik lii mooy li ma man fii laa mën a yem la ci des maa ngi ñaan nga bañ ma koo jàppe juróomeeli xaq yi nga xam ne moom la soxna si am te góor gi ameel ko ko mooy soxna si kenn du soppi aw santam aku askanam loolu li xew ci réew yi occidentaux yi nga xam ne tey jigéen ji dañuy soppi askanam soppi cosaanam indi ko mu mel ni ku bokk si ci askanu ku góor ki loolu ci lislaam amu ci nekk noonu itam wàllu alalam nam cay soppaxndikoo di lijjanti di jaay ak jënd ak lam cay def loolu it góor gi yoonam nekku ci jigéen gi moo ko moom sañ na ko ne yow doo doo doo génn kër gi di liggéeyi loolu sañ na ko waaye nag ab alalam mu jox ko ñeneen ñu ko ciy liggéeyal loolu yoonu góor gi nekku ci alalam sax sañ na cee maye itam lu ko neex soppaxni ko ci lu ko neex ba mu des bu naree maye léppi alal ji moom boobaa des na ko wax ne ko góor gi sañ na ko wax ne ko doo maye lépp te boobaa faw jigéen gi topp ko ci loolu noonu la boroom xam-xam yi déggee xadis bi wax ne laysa lil mar'ati an tantahika min maaliha shay'an illa bi idni zawjiha inhaak mooy jeexal léppi alal ji loolu mooy gàttal gi mu am nag ay xaq yoo xam ni ñoom ñaar ñoo ñoo ci yem góor geeg jigéen ci ñoom ñaar ñépp ñoo ko bokk sé séq ko ba ci jëkk mooy dund dundin wu tegu ci njekk ak teraanga dund gu rafet loolu ñoom ñaar ñépp ko war a sàmm góor gi war na ko sàmm jigéen gi itam war na ko sàmm day am ñoo xam ne dañ lay wax ne la man soxna si ma yor samay kilifa ñoo ma ko jox waaye man bëgguma ko te mënuma ci génn itam waaye foofu yow boo ko bëggul itam bul ko tooñ masalan tooñ baaxul xam ngeen ne tooñ yàlla dafa sub yonente bi aleyhi salaam dafa wax ne az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama yenn borom xam-xam yi wax ne dana àgg sax ba ci sa biir bàmmeel soo dee ku doon tooñ bàmmeel bi foofu lay tàmbalee day lëndam këriis dara cig leer du ca ne moo tax tooñ mat mata moytu moo tax suñu borom wax ne wa aachiruhunna bil maaruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu cheyan wa yajal allahu fihi xayran kathiran masalan bu ngeen le bu leen bu la neexut itam jéem a la dund ak moom ci jekk ak teraanga ak teral ko sa kem kattan ak fexe ba dund bi rafet ci kanam ñépp ndax léeg-léeg mbir naqari la te fekk loolee moo gën ci yow bokk na ci yi nga xam ne itam ñoom ñaar ñoo ko seq muy xàq joo xam ne ci seen diggante la ne mooy kenn ku ne àq la ci ka ca des mu donn la am cib cër yàlla moo wax ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad waxaat ne walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad mooy kenn ku ci ne boo faatoo ka ca des dalaa war a donn wax na itam nañ koy donnee niki noonu mu am loo xam ne ñu bari dañ ci dañ ciy jaawale mooy soxna si xam da nga fas da nga bàyyi te passé mi di passé fayli muñ mëna fayli ji fay fay fayli koku ba légui fimné sa soxna lañ koy japp fimné bu faato dang koy donnu bo faato mu donn la li feeg mi ngi ci biir idda mom ay xéeti sey yo xamni mom don duñ ca donante mukk muy boo doon sëyeeg ab yéefar masalan ko xamni dafa bok ci ahlul kitab ab nasaran nasraniya wala yahudiya ñaar ñooñu koo ci séyal bu faatoo doo ko donn boo faatoo du la donn boo demee bay waaj a faatu itam nekk tawet joo xam ne ñëpp xam ne ne yow da xëy mbaa dangay ngay gont nga yéene nit ci sa alal tax nga daal di koy takk kooku boo faatoo du tax mu sañ laa mu sañ laa donn ñaari xeet sëy yooyu mooy sëy yi nga xam ne kenn du ci donn sa moroom kon loolu ci gàttal mooy xàq yi waxoon naa ne boo demee ci yenn téere yi da gis ñu lim ci lu bare bare bare waaye yépp dugg na ci yi wax nii mu des nag yàlla subhanahu wa taala dafa teg yoon woo xam ni bu sëy bi naqaree nañ ko war a lijjantee xam ngeen ne sëy ab ànd rek day neex day naqari sëñ Tuuba radiallahu anhu wax nañ ne sëñ El Hadji laa gis mu wax ko wax ni itam wér na moom nettali bi ne dafa am ku mas ñëw ci sëñ bi di ko jàmbat soxnaam ba mu waxee wax a ba àggal señ bi ne ko ndax moom soxna sa nongu naa ànd ak yow di jaamu yàlla mu ne ko waaw mu ngay kuy jaamu yàlla la soxna si sëñ bi ne ko yow de li tax ñu jox la soxna si mooy ne dangaa amee jàngoro joo xam ni moom rek moo yor saafara si nga ko mën a saafara te doo am bàkkaar saafara nag boo demee ba bëgg ko jàppee ab dund boobaa lay sikk di la sikk di feeñ ne ko nag lu bari ci li ngeen di jambat noonu rek la demee wéyal te boo demee maanaam nga nga jéem a ànd ak moom loolu mooy gàttal mooy dénkaane bu am solo bu bari yuñ mën a jàngate ci biir net li boobu nekk noonu sëñ bi mas naa wax kenn seen soxna soo xam ne su ko jege la dane ko sëy ñaar rek la ab coono la aku metit asgor nag day ñiime ab coono ab jullit itam daa war a muñ aw mettit te man kuñ may ku ñuy tudd di ma tudd ñaar yooyu war nga cee doon lenn mooy doona su gor wala nga doon ab jullit wala nga boole ñaar yépp moo tax ab sëy itam day neex waaye day naqar itam bu naqaree nag mooy suñ demee ba kenn ci ñaari ñiy dencante sàmmoonte ak xaqi kacaras ci xaq ya ma waxoon masalan su fekkee jigéen ji dafa sàmmoonte wut ak xaqi góor gi booba yàlla wax na nañ koy lijjante mooy góor gi na ko njëkk a waar waar gi mooy da koy fàttali seen diggante fàttali ko li yàlla digle ak li yàlla bëgg ci ci soxna suy sëy su fekkee ne waar ga jëriñu ca dara mu jàmb ko xaw ko mere xaw ko wan ginnaaw tuuti waaye loolu itam bu mu génn kër gi yàlla dafa wax ne wahjuruhunna fil madaji'i yonente bi wax kam doon digal ne ko wala tahjur illa fil bayti moy tongo bobu bu mu genn kër gi bu mu genn nek bi ña biti sax buñ ko xam su lolu jëriñu dara nak mu xupp ko ci manam nar ko fitnaal waaye fitna yee ya bu metti bu ko bu bu xupp ba dal itam lolu moy gatal su fekke ne lolu lepp jëriñu dara nak ñu doo ko wut ñu doog a dem ci seeni kilifa ñu lijjanti leen danañ wax léegi nañ koy lijjante waaye góor gi itam woowu yoon lañ koy lijjante fuqaha yi wax nañ ne nit ki bu fekkee ne borom këram dafa nekk di ko lor di def yoo xam ne sàmm tuut ak xàqi soxna si boobaa dafa war a dem ci attekat ba bu attekat amee wala bu dee ci suñ jamono yi nga dem ci kilifa boroom kër gi diis ko ko bu kilifa gi da ko war a woo moom it waar ko jàjji ko su loolu jëriñul dara mu wax soxna si ne ko xañ ko sa bopp su fekkee ne loolu jëriñul dara mu yarlu ko moom kilifa gi mën na ko tëj mën sax dumalu duma yu yu ndaw yu bañ yu bañ a gaañe wala muy dem ab cër loolu mooy li sun bor wax ne wallaat wallaati taxaafuuna nusuusahunna faiduhunna wahjuruhunna fi lmadaajici wadribuhunna fa ina ataanakum fala tabgu alayhinna sabila ñett yooyu yit bul ci bul ko maanaam bul jékki-jékki rek jàmm ko te waaroo ko njëkk kenn du seet la mujj ci ñett yi ma wax ni nga di ko jëkkal loolu dañ koy aaye su fekkee nag coow li të të naa dakk nga xam ne tey ñoom ñaar kenn ku ne boo ko digloo da nga jàpp ni kii mu am dëgg boroom kër bi bu waxee danga naan jigéen gi sàmmoonte wut ak xàqam waye jigen ji bo xeet nga ne borom keur gi mo sàmmantuut tak xàqi soxna ci lolu bo wax ne ne kilifa yi dañuy wut ñaari kat kenn ki bok ci ñi ñi bok ak soxna ci kenn ki bok ci ñi nga xamni ño bok ak gor gi kat yoyu hakam moy li sun mar wax ne wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma ñaari article yooyu dañu nekk ay jullit nekk ay gor nekk góor te kàllafe te maandu te dégg fiq masalan xam attey nan la ñuy lijjante ab sëy ñooñu bu ñëwee toog ak ñaari way dencante ñi di leen di wax ak ñoom di lijjante seen yitte nag na nekk defaraat sëy bi ca jataay ba bu ñu gisee ne sëy bii mënatut a baax ñoom sañ nañoo tas sëy bi te buñ ko tasee day doon passé mu dog tasub sëy nag lu mat di tey la léeg-léeg nga gis ku ko def ginnaaw bu mu rëcc ko yitteem di delluwaat ca sëy ba mu tëkku dama am lu ma mës a gis cheikh oustaz Cheikh Tidiane ngay nettali ko ci alxaadima jaxate kala téere bi mu def ci moom mu nettali ne xaadima jaxate kala dafa am ñaar ñoo xam ne dañ doon sëy ñëw maanaam di mu war leen atte Jigen gi ne ko man dama fase góor gi ne ko man fasewuma ko dama ne ko fas wa naan na mu yàkkan dama ne ko fase naa la dama ne ko fas wa naan na mu jàpp ne dama ne ko fase naa la jahat jaxate ne ko yow toogal ci kër gi téye ko fa wax jigéen nga ne ko demal bañ ca tege ay fan mu woolu mu jekkee gi sëlmal da ko saan rek ne ana ki fasé won soxna mu ne ko ma ngi ni mu ne ko yow koy sa ya def lepp <laughs> motax fasé soxna ak wax wax ju tekkale ay digënt lool lu mata def tay la jërut di gawto am nak denkaane bo xamni ci lay jeexale señ mbay jaxata la gis mu denk ko mboolem murid yépp waye kuko def ci sa kër sa kër jamm dana fa am te xéewal dana fa am soxna suko lambo di nga am jamm sa digg sa borom kër waaye borom kër bu ko làmboo itam di nga am jàmm sa diggante ak sa soxna ak sa njaboot gépp mooy li wax ne defal garab gu sedd ker dafa xam ne defal garab maanaam boo bëggee ñëpp maase bëgg la ci misaal rek nga mbokk ak ñëpp ànd ak ci jàmm dangay mel ni garab gu lewet gu sedd ker te guddul tey neexi doom it ba kuy mos dal déraaseeti bul wex garab bu waxee doomam ba kenn du ko sex mbaa waaju koy sex itam day day dal di yàbbeti féexal sëqal yaatul te bul ami dégg garab gu mel nii ma wax doo gis ko koy baati loolu rek mënoon naa doy waxtaan bayti Sëñ Bay Jaxate yan yàlla fayal na ko te defal na tawféex yi dëgg ak topp ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu